bul fàtte ne Gabriel Kane saa yu Macky Sall di ñëw Europe mu nekk Rome wala Paris Abass Onatimo saa yu Macky Sall di ñëw Europe mu nekk Rome wala mu nekk Paris ñooy nekkandoo ak sa ñeent xale yu moroomu jigéen ñoo xamante ni ay taatu neen la ñuy def mën naa ne la ñuy sol daanaka mook taat yi ñoo yem nii la ñuy jaabantee ni dox ci kaw ministre yi pour ñu leen di gis mën leen di indi ci kaw yow rek yóbbu nañ la ci kaw trois fois bul ma tax wax loolu yaa ngi toog maa ngi toog hôtel war wi boo fexee ba ma tàng bëgguma yàq jigéen moo tax génnal ci coow li. Sarr ba muy dëkk Mermoz si kër ga Gabriel Kane mu ngi dëkk ak moom deux cent pas xam nañu lépp de ba mu jugee foofu Adji Sarr am problème ba mu ko yóbbu Saly daal sa hôtel ba xam na nañu lépp de ba muy joteeg Adji Sarr ba Adji Sarr di dem si euh, Mati trois pomme xam nañu lu waral coow li de man Adji Sarr ba léegi toogul fenn ne Kaliphone lekk nga sama téeméeri dërëm man maa ko doon jox it mais nag ku doon enrichir suñ doodu aji saar doon puus aji saar di ko naan waxal lii waxal lee xaaral mu tal euh, France 24 ak RFI di monde ak eh loolu gars yi fàttewuñ ko de kon nag bu la gars yi toogee si ànd bi kenn waxtul sa dossier toogel de aji saar bu bucceti ko nii lépp yaay nekk si ginaaw yow man lu nekkoon sama ginnaaw ak aji saar musuma puus aji saar xeex laa amoon ak waa Pastef ñu ngi may dégg ma ñëw jël aji saar di gën di xeex ak ñoom di dóor muy métti musuma am mille francs amul benn ministre wala directeur bu ma ma Sénégal fan teel téeméer ndax li ngay défendre aji saar amut amut lu leer mais ku toogoon si ruq rek enrichir aji saar def affaire nandité way aji saar ba ñuy dem tribunal sax Range Rover ba moo ko yenn woon ba robe rouge ba bu leen ñu andiwaat si ay détails ñun ñu ngi sunu guerre ak Ahmed Cissé téegal na nu. ne ma ma sama WhatsApp ma daane rek kali su ma duggee sama whatsapp damay dem bind Gabrielle kan wàcc ba ci suuf xool suñuy audio ñun ñaar lan lan doon waxtaan lan la ma daan envoyé ak lan la ñu kon ñun danoo xamante suñu biir kali tamit noonu day dugg ci whatsapp am bind Gabrielle Kane génnee Gabrielle Kane séq lan lan daan waxtaan ak fi nu jaar ñun ñëpp dañu koo yore danoo xamante suñu biir. léegi buñ ci xuusee nag. day mel ne koy yàq te jigéen la. te man waxoon naa affaire jigéen sax dama koo tàyyal. doomu xaram kii tegal foofu sa baaraam ban autorité moo jëlaloon Adji Sarr appartement deetawaaye chaque fin du mois mu jox Gabriel Kane huit cent mille ne joxal Adji Sarr lan la ci doon gagné. waaw waaw maa ngi jégalu tegal foofu sa loxo. ba loolu baax na baax na baax ok xam ci koyu sëñ bi. salaam xam bañ damay bañ Ahmed Cissé. di ko naan way ñëwal ni patati mu dugal boppam. déedéet dugal bu ko defee bu ko defee yàq ko. Eh, Cheikh Ahmed Cissé moom wuy ma Cheikh Ahmed Cissé moom ñu xamul yéen xam nañu wifi. dossier moom aji saar xaaral tuuti rek xaaral tuuti ba kii. non bi laa lay wax rek bi laa lay wax nga continuer ba pare. da nga da nga am loo yor téye ko mu nekk sa loxo ma am lu ma yor téye ko te loolu bu baax ci cabinet kat moo tax moo tax ma ne la tegal foofu baaraam ñëpp gis nañ ba ma toogee wal fajiri dam ko ne Gabriel Kane bu ma waxee bopp maar Marley day jóg boobu ba léegi nit ñi ngi bëgg ma wax ma bàyyi mu sedd ma sekk ak moom jàmm musul dégg si réseaux sociaux moo ko dara keroog ba mu amee problème ak Babacar Touré déggante nañu it message yaa a même pas deux semaines trois semaines kon kooku mooy jàmm mu ngi dox suñu biir ba ñu nekkee Dakar ñu ngi doon gisante wax dëgg fa yàlla mais dam ko bëgg yëgal ni ko ñun ak moom ak ñépp ñoo nekkoon si aji saar gi de te kan moo enrichir su aji saar bi aji saar génnul ne Kaliphone moo lekk sama xaalis jour bi ma koy jël moom téléphone ak aji saar aji saar di ko saaga mu ngi dégg de parce que dama ko def appel 3 aji saar di saaga ndeyam di ko ne seen kër gi sama alal ngeen ko tabaxee sa oto yi sama alal ngeen ko tabaxee ma xam si lu bari nag yan autorité ñoo ko doon jox xaalis. muy jox aji saar Gabriel xam na xam nañu ban dund bu neex la amoon yenn ministre yi doon ko recevoir ba si ministre de l' intérieur euh, damay tudd tur euh, nu mu tuddati lu tuuti la. Antoine exact ba muy toog bureau Antoine di ma woon naan maa Antoine nii di wax bul ma andi loo wax nag bul ma wax loo de bul ma wax loo de li la Antoine doon jox parweer bul ma waxloo loo journaliste ya de bugguma tudd tur nag yaa ngi dugg foo xam ne xamoo ko àndalaa buur yi amalu la benn njariñ benn musu la benn komba donc nag dugguñu sa 18 boo bëggee dugg suñuy 18 nag dina wex xatt si yow te bu boobaa nag bu kenn ne kii jigéen la say mbokk ngi dégg say famille ngi dégg dinañ leen a génnal si lii. boo amee cofeel ak moom sa problème la bul am cofeel ak ñun parce que sa cofeel si ñun mënuñoo yokkal dara boo amee cofeel yokkal ko sa bopp